ci yenn kaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye repérage Ousseynou Ndiaye dal ñu ànd yër yéene yi nga xam ne nag moom nañu xëyandoo jamono ji nag enquête ba lu muy gën di leer l'observateur du ñu xamal ne ki nga xam ne kay mooy chauffeur bi nga xam ne moo fiiroon waaja ba mu génn àdduna chauffeur boobee jamono ji identifié nañ ko waaw maanaam xammee nañ ko am na tamit lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne ci waa Pire lañu bokk libération du ñu xamal ne ak lu mel ne xew enquête boobee kay daanaka xam ne nag moom lay gën di sore moo di ñi nga xam ne ñoo doon def ñaawteef googe yoon dana rëq seen digg maanaam danañ leen tegaat ci yoon enquête yéen a kaay di ñu xamal ne ak lu mën di xew Macky Sall kay jamono ji ma ngay artu képp koo xam ne nag dangaa nar a yàq jongante ngi tur yi nga xam ne moom la doon Macky Sall nee loolee moom du ko nangu kàddu yooyu nga xam ne ma ngi ko yëkkati woon ci meeting bu mag doon amal Sall daal lu am te jaaxal askan yi yéen kaay bi di l'observateur dellu si muy lu toll ci juróom juróom ñeen fukk ñeent ci ay milliards yi nga xam ne joxoon nañ ci diggante Mamour Diallo ak Ousmane Sonko yéenekaay na ba ne loolee du ko nangu waaw nee ak nit yoo xam ne daal xamuñu fu ñu jógee xamuñu luñ leen naaral ñu bëgg maa boole ñoom Ousmane Sonko ne loolee

Seck jamono ji li mu nekkee dañu ko cee bàyyi moom Idrissa Seck jukko yow dëgg la yoru ah du samay kàddu de Serigne Moustapha Bousso Samad moo ko nag lenn rek ko tax yëkkati ay kàddu yu tàng jër daal koy jëmale ci nga xam ne nag moo fi nekkoon njiitu réew mi di Abdoulaye a waaw tey nag responsable politique bi nga xam ne moom la wax Fadal Mbaye waaw nekk responsable politique APR démb kay ba mu demee fi nga xam ne nag moo di Darou dajale askan wi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee ba mu jëlee kàddu ga daal xam ne ne jamono gi nag Macky fexe leen mu am deuxième mandat yéen xale yi laa wax Macky Sall fexe leen mu am deuxième mandat ndaxte kay Macky Sall moo jig réewum Sénégal du samay kàddu kàddu yi Fandène Mbaye la dem na sax ba egg xale yi dem ñaax leen seeni waajur yi ngir ñu wateel Macky Sall képp koo xam ne xam ngeen ko narut a woy Wally Seck tàng jër maire ba fut Wally Seck nag daam mujjee gedd li nga xam ne nag moo di concert boobee waaw dafa jàpp ni sax moom moomee dañu koo minimiser maanaam dañu koo ñàkkal fulla mën ngeen koo fekk ci 24actu.com